sant euh, lan mooy say yan ban sentiment moo la animé tey jii ci cérémonie bi ñu war a amal di prestation de serment. fier du peuple sénégalais qui a été un peuple résilient ah combatif et qui a choisi la démocratie pour régler tous ses contentieux politiques et aujourd'hui malgré tout ce a enduré pendant trois ans mm. le peuple est résilient et a dit à l'élite politique que nous allons régler tous nos contentieux mm. à travers la voie des urnes. et ça a été fait le 24 mars de manière exceptionnelle voilà. mën nañu wax ni rupture bi ñuy temps prôné sonné na tey. rupture lii euh, je pense que c'est quelque chose boo xam ne dund nañ ko dundaat ko ay alternance rupture on attend le discours du nouveau président de la République et puis ses orientations. ci orientation ak acte yi muy ah, la ñu mën a degré rupture mais. bu lekkee les prestation serment gis nañ ko fi bu lekkee le fal président gis nañ ko fi bu lekkee président diggee la gis nañ ko fi maintenant on va aller aux actes c'est aux actes qu'on va juger les ruptures. merci et bonne séance.